su man moom d'ailleurs je regarde même pas les commentaires parce que j'ai pas de temps parfois sama manager moo may ñëw. sama xol neexul waaye xëy ma ñëw wuti manager fompal ma samay ronkoñ waaye.